léegi loolu ni ko ñëpp yëge rek daanaka noonu lañ ko yëge gannaaw mu sant yàlla jul ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam di wax ne waaw di wax ne altine ci guddi bi ñu jëlee timis bi ñu bëgg jëlee timis la fi yaayam ñëw doon ko seet si ne ne woo na ko woo mun koo jot mu ñëw ne xaar mu ñëw seeti ko ñu ñëw fëgg-fëgg kenn wuyuwul mu am ko mu woo mu yégal ko mu dugg ñu jam ko ba mu dee lii daal mu daal di yuuxu loolu daal nan lan ci am nun ñëpp altine ci timis waaw timis ci lañ koy yëg parce que man maa ngi woon ci jàkk ja ma julli timis ba pare lañ ma woo ne ma ñëwal rey ñu jaas ca néegam dañ ko jam ndax su ma julli waa timis dama fay toog ba julli gee waaye keroog fii laa jullee sama kër laa jullee gee nii daal dañ ko yége yaayam yaayam moo moo woo kenn ci ay xale yu góor ne ko yéegal ma parce que bunt bi dañ ko tëj te fëgg naa fëgg ki may wuy wuyuwul te xaw ma mi ngi ci biiram déet yéegal xoolal ma ba xam mi ngi ci biiram déet su fekkee mi ngi ci biir nga wax ma mu yéeg gis ñu def ko noonu mu wax ko yaay ji ne ko kii kat dañ koo jam daal di ubbi daal di koy wax yaay ji dañ koo jam ba mu dee ci kaw lal bi mu daal di yuuxu ci la mboole bi yëpp ñëw nag ñu daal di ñëw ci jàkka ji wax ma ko. dem naa ba tiim ko dem naa ba tiim ko waaw dañ ko jam. dañ ko jam ci ci los ci los bi ak ci ak ci wet yi ay jam jam yu xoot pak bu bon jam jam yu xoot lañ ko jam mom dañ ko fas dañ ko ñëwoon pour ray rek ko déedéet bàyyi ñu ko fa déedéet dal mom bari na fa mom fek solo na yéreem waaw après police do a ñew après ñu dolli daal wo police ak ak sapeur ñu ñëw def constat bi daal di koy sapeur daal di koy yóbbu. ñu ne xam ci moom bari na bari na waaye bariwul ndax man kër gi man maa ko jëndal bi mu soxlaa kër gi moom moom kër gi moom ci boppam te ñaar fukki at ak juróom la am waaw Pape moom moom kër gi maa ànd ak moom ba ci chef bi ma demal léegi foofu la doon fayante ak borom kër gi. léegi nag di mu ko jëndee ba noppi mu ne dama ko bëgg a def poulailler dafi jaay ay ginaar mu def poulailler bi ba pare di ko luyee ku bëgg a yar mu luyee la ba say ginaar mat nga jaay nga fay ko moom itam mu yaraale lii daal la nekk woon loolu daal xamal naag ko muy ko am jam nag waa koñ bi moom mosu fee kenn amu fee kenn benn xaar yàlla non man loolu mosuma ko dégg ma rek am na néew ma rek amut waaye man pour man mu wax dëgg xaw ma ko parce que man euh, dama fréquenté ak moom moom rarement lan daan gisee kon loolu moom mënu ma si wax lu bari xam ay maire daal moom gis gisaguñ fi ku gisuñu fi ndawam ndawam daal gisaguñ ko fi maire ñëwul te wax dëgg yàlla war na fee taxaw sax au moins wala mu yónnee fi ndaw li moom mën naa cee wax ndaxte lu mu gàtt gàtt am na li ma xam ci moom nam saa ñuy romb ma ci buntu kër gi ma di ko tooñ daan ko jox ma ginaar ak kii ak yooyu te musuma gis ci ndaw li histoire gisuma gis muy weranteeg ñoom gisuma gis dara te man xale yi presque samay waa kër gi xale yëpp presque bu ñëwee ci buntu kër gi la toog toogandoo ak ñoom foofu mi wax xamaluma ko ay xamaluma ko xuloo xamaluma ko xeex tànk bi gàtt na dem na yóbbu na ginaar ñëw na delluwaat na palaasam ma jékki-jékki toog warugar sax laa doon nangu maire bi ñëw ne ma dafa am benn xale bu ñu rey fee la ñu jox ma ne man fu ñu ko rey mu ne ma ci poulailler bi ma ne ban poulailler mu bi jàkkaarloog kër Awa Ndiaye ma ne ko kooku kooku du du moom ne ma moom la de ma ne ko mu romb ma fii léegi nga ne ma moom la ñu mu ne ma man ne la kenn ku la romb ci bëccëg nga kooku la ñu wax nu man loolu laa ci am ñu koy naqarlu lool nag. di ko naqarlu mu ñu am ci tiis boo xam ne wax dëgg yàlla bëri na banditisme fii moom mais ray bu mel ni musul am ci fii agressé ñun ñemeetuñu xëy suñu njaboot yi ñemeetuñu xëy ñemeetuñu guddee mais rey bii moom ñaaw na trop trop trop trop te ñaaw na ku baax la def billaahi min naa ko nii tuuti rek au jour dama ko yóbbaale quoi mais de barki démb damaa toog di xool affaire yi ma gis ko quoi ma ne kii xàmmee naa kii Pape la tudd. mii nañ te nañ sax on man kawsu laay ut dama romb fii di ut kawsu mu ne ma fii mooy sunu kër. billaahi wóor na yàlla mais ku baax la. am na benn gaan moo ko doon laajte sax ma ndekete yow dégg naa kii la ñu mu ne ma kii la ñu billaahi bëri fi torop. bëri na fi torop mais fii koñ moo desee am sécurité rek. billaahi moom mën na jàppale góor yàlla yi moom ñu ndax ñun moom liggéey rek lañ gëm. billaahi man moom saa yoo ma gisee maa ngi sama sareet di ut kawsu damay for ay kawsu lu ma am yóbbu sunu kër maa ay njaboot maa ay doom maa ngi soxna. billaahi saa yu ma xëyee sareet bee laa su ma xëyee damay wëndeelu ji lu ma am xam doyloo ko billaahi. ah. waaw sécurité moo fi manqué billaahi. mais dañoo war a sécurité fii bu baax a baax ndax nit ñi daanaka mooy loolu léegi fii mooy fii bëri na kirim torop gars dañuy rey rek billaahi même si ginnaaw fële temps yële si ginnaaw rek rey nañ suñ benn xarit barki yàlla sareet la yor ay xaritam sax ñoo ko rey barki Seydina Mohamed loolu ñaaw la billaahi xam ma nit nan la mën a tiime doomu moroomu doomu aadamaam di ko rey billaahi am na ñoo xam ne ginaar sax pour ñu rey ko problème ñu jàpp doomu aadama di ko rey tiis ak naqar moom moo moo fi am ndax xale bu tuuti a ah, di daan dooleem am ambition ambitieux yore liggéeyam yore di di teral ay waajuram ñu ñëw fekk ci place liggéeyukaayam ren di ko loolu metti na lu metti la ñu di ko tiis nag di ko di ko di ko mettitlu di ko ñaawlu ba fu ñaawlu yem am na commencement mais amul fin ndax lii dafa metti ku mu daal ku mu doon yow ñun ay yaay lañ euh, bien que ay bàjjan lañ mais yaay lañ avant tout te ku ci nekk da nga koy xool ci sa bopp tey ku amoon tey sa doom tey am ci moom yaakaar mu nekk tey di la jàppale tey nekk di di di di di di njafe lu mu la nii mën a sama lu ma dimbale samay waajur ñu fekk ko ci place liggéeyam te mu nekk koo xam ne isam oti koo wax ñu amul benn problème liggéeyam kenn presque ñi xamuñu ko nit ñi xamuñu ko ndax mu ngi ci liggéeyam loolu jëgg ay coow ay wax kenn mosu ko cee dégg liggéeyam lañ ko xamal dem doxi ay soxlaam ñoo liggéey liggéey liggéeyam teral ay waajuram donc kooku bu ñu ko fekkee ci place liggéeyee kaam ko bu fekkoon dañ ko fekkoon si beneen milieu sax ñu ne xëy na lekkat xëy na débauche bi la wala yooy mais ci fi muy liggéeyee fa lañ ko fekk ah, def ko lu metti lii lii tam lii tam lu lu lu jar a wax la du dëgg ñu ngi koy metti lu nag di ko ñaawlu wa fu ñaawlu yem sëñ bi wallaahi insécurité bi mi ngi sévir fii lu metti parce que lenn lu ko lu ko gën a waral xëy na ta lampe yi euh, kii fi les rues sont mal éclairées dégg nga éclairage bi doyul ba pare insécurité bi parce que itam doo balaay timis bu timis jotee doo mën a génn dem fenn da ngay ragal san njaboot sa doo mën a da ngay ragal yónni say say njaboot donc loolu itam foog foog foog ñu wax ci ñu dimbale ñu ci itam ñu xool nu ñuy nu ñuy éradiquer ci loolu yëpp ñu jàppale ñu ci insécurité bi am ci koñ bi. xew bi dara. maa ngi leen di nuyu man tamit di leen di sant di leen di gërëm ndax wax dëgg moom de lii ngeen nu mu tuddati jóge ngeen fu sori ñoo fi pour tamit dimbale ñu ci liñ ci li ñu nekkee fii àllu baay ñaax waaw ah kii de wax dëgg moom xale góor bi moom Pape jaw moom wax dëgg moom ah moo ngi noonu daal waaw man daal damaa demoon natt ba jóge natt ba pare dëgg ñuy ñëw ñu dégg ñu naan am na ku ñu rey am na ku ñu rey ñu ne rey ma ne sama benn xarit ma ne ko rey ma ne ma waax ma ko ah tee ñoo dem ñu dem seeti ji ndax njaboot moom boo déggee ne am na ku ñu rey da war a dem xool ba xam ci la ñu ñëw ñu ne Pape Diaw la man nag miinuma ko bu baax wante mos na ma fee jaay ñaari yoon ay ginaar waaw waaw déedéet lii mën ni moom mosu fee am moom mësul am wante wante agression bi dafay am ak sàcc yi dafay am